Mark saar benn walla ci linjiin di xabaar bu baax bi ci almasi bi yeesu ni ko yàlla jaaralee ci Mark xabaar bu baaxu yéesu kirist doomi yàlla nii la tàmbalee bindu nañu ci téereb yonent yàlla esayi naan maa ngi yónni sama ndaw ci sa kanam mu xalal la sa yoon baata ngi xaacu ca màndiŋ ma naan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 booba yéesu jóge na dëkku nasaret ci diwaanu galile ñëw yax sóob ko ci dexu yurdaan bi muy génn ndox mi mu daldi gis asamaan xar te xelum yàlla di wàcc ci melow pitax ñëw ci moom te baat bu jóge asamaan jib ne yaa di sama doom ji ma bëgg ci yow laa ame bànneex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 te ànd ak sañ day sant rab yi sax ñu di ko déggal noonu turam daldi siiw ci diwaanu galile gépp bi nga xamee ne gin nañu ci jàngu bi ñu ànd ak saak ak yowaan dem ci kër simon ak andré fekk gorob simon bu jigéen tëdd wopp ak yaram wu tàng ñu daldi ko yëgal yéesu